asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen sama gars yi ziar naa leen ñi ngi ñëwaat rek ci recette vendredi wala samedi nee naa leen léeg-léeg dañuy tardé ak ren herbe épice épice yaa ngi tegee lakk yàpp sauce épice roof épice viande épice touffé ak yeneen yi di dem si jën lakk jën poisson c'est bon nga xamante ne ñoom ñi préféré euh, def jën donc épices yooyu ngeen di am nee naa la vingt variétés épices la foo ko woo rek ren herbe épice wuy la tey nag dañuy dem Italie defar lasagne dafa sedd di ñun presque ça fait dix jours a ngi nii mi ngi taw taw arrêté sedd bi boole ko taw bu sedd boo xamante ne lasagne yii genre plat yi moo neex ci sedd moo tax dama ciy defar lu bëri viande hachée fromage euh, soble carotte euh, voilà li may def ci nokkos bi mi ngi noonu euh, moom laay recevoir sax du nokkos dama def soble def laaj def céleri ak carotte mu nekk bouquet aromatique boo xamante ne dañ koy dañ koy faral di def booy defar ay ragoût booy defar ay plat de sauce voilà lu ci mel ni euh, bolognaise wala lasagne bolognaise bi ñuy defar léegi ci cin bi ñu def suñu dëwlin njëkkee ak euh, li ma dëbb nii gis nga mokkul dama ko tiital rek voilà dama ko dama ko tucc tuccal voilà moom la ñuy gis nga carotte bi mooy gën a feeñ ndax couleuram mais am na soble am na céleri ak laaj voilà ñu bàyyi ko fa nag 10 minutes mu wàññi gaz bi saveur yi génn sucre yi génn avant ñu ciy def ndawal bi maa nga ca fromage bi nuyu waa tim fromage euh, dama am benn fromage turc buy xaw a nduróog la dafa tombé rek bi may jënd viande hachée mais jaxase naa ko ak entremets pour saveur bi gën a mën a génn parce que man sama lasagne damay bëgg mu saf fromage xaw ma nag yéen nu ngeen di bëggee seen lasagne voilà bëgg naa ko ci commentaire yi mais gëj nañu lasagne ah gëj nañu lasagne mais nañ ko def saveur à la sénégalaise voilà lasagne bu saf sap mais lasagne bi ni neex gi mu neex sax dafa ëpp maa la wax lii te bala muy neex kat nga bàyyi mu fanaan le lendemain lay gën a neex ci lay meilleur voilà nga def viande hachée bi tas tase ko euh, bu ko defee ñu daal di sànni suñu xorom euh, daal di sàppali ñoo def suñu Reen Herbes Épices yëg ngeen ni Reen Herbes Épices mi ngi exclusif bu ci VDN bi ak Yoff <laughs> waaw waaw point de vente yu bees tàq Reen Herbes Épices bu ngeen doxantoo ba exclusif da ngeen fay fekk ren Herbes Épices sama gars yi ñi mënul woote wala ñi nga xamante ne bëgguñu ñu livrer leen dem leen exclusif bi nekk ci VDN bi ak bi nekk Yoff di ngeen fa fekk ren Herbes Épices sinon même numéro de téléphone bi fépp fu ngeen nekk ñu livrer leen voilà yéen ñi nekk ci diaspora bi euh, numéro international baa ngi jàll wala ngeen dugg ci site internet bi pour def seen achat def na épice su sauce def épice su légume def épice su viande voilà comme ni ma ko waxee dañ koy sàppali ba mu saf def ko à la sénégalaise mu nekk lasagne bu saf maa la wax li dolli naa basilic Euh, bu wow dolli naa euh, oignon vert voilà dama ko fi amoon man des fois damay faral di am yenn herbe aromatique yi mais yu wow yi sinon su ma ko amee yu frais dama koy wowal donc euh, fu may defar genre plat yu mel ni def ko ci nañ ci sànni tamit laurier wala bouquet garni bu am tuuti thym parce que xam nga italien bu ñu koy def dañ ciy def bouquet herbe aromatique ba mu neex tomate loqati bi nag dafa neex turki lay jóge dafa xaw a saf suukar boo ko ceebu jënee lu lu lu lu toog ngay am voilà gis nga texture bi ñuy am yëf yi dafa mujj weesang ba pare boo mixé carotte bi ak soble bi dafay xaw a jaxasoo ak viande hachée bi voilà yëf yi day gën a mokk daal gën a neex maa la wax li beneen astuce la essayer leen ko euh, dafa ñuy permettre aussi ñu gañee du temps benn potu tomate euh, pulpe de tomate wala nga jël sa ñetti tomate fa fraîche xolli ko daggat ko même résultat ngay am bu ko defee ñu daal di yëngal tëj tuuti bàyyi sukki duggante bàyyi guu bi génn bàyyi tomate bi dog avant ñuy ñuluk voilà gis nga bi ma ko tëjee diw bi sànq bi ma ko ubbee nekku ci woon nga daal di jël nag euh, ñeexu tomate bi voilà purée de tomate euh, daal di ko ciy def voilà moom laa ko ñulugee très bien mi ngook nañ ci def yëpp rek nee naa la lasagne bu bëri lay defar waaw kay léegi yelendil tuuti euh, pot bi daal di ko ciy def léegi nag wàññi gaz ba mu ndaw tëj bàyyi sucre yi duggante ba sunu lasagne compoté ñor xomb ñu jàll ci sos béchamel bi maa la wax lii. léegi jël naa lu toll ci cent gra cent moom laay seeyal noonu def ko ci casserole bi ak trois cuillerées à soupe de farine yu bombe maanaam kuddu kuddu yu mag yu fees dell ñett yu farine moom laa def ci béchamel bi ak litre meew voilà. bu desee nga defar sa ay croque monsieur bu desee nga sàppaliwaat sa béchamel def ci euh, tuuti laaj wala nga def ci sa nokkos voilà mën na la service de sauce booy lekk sa jën wala booy lekk sa yàpp mën nekk beneen sauce bu neex wala nga def ci moutarde voilà euh, sauce béchamel itam dañ koy revisiter dolli ci cafka mu gën a neex bu fekkee da ngay defar say croquette tamit même sauce même base sauce béchamel bi moo koy defar voilà gis nga texture bi nag bul defagum meew bi xaaral léegi fii damay xorom gis nga bàyyi muy compoter di jël couleur farine bi ñor nga xamante ni sa béchamel dafay am goût et puis sa lasagne boo koy lekk beneen goût ngay am beneen saveur léegi ma def nois de muscade jaxase def euh, xorom ba couleur bi xawa a marron voilà maintenant nag nga daal di jël sa meew def ko ci bu fekkee da def kii bi rek euh, farine bi rek def meew farine bi du ñor donc sa sauce béchamel dafay lewet du am goût voilà da nga war a xaar ba farine bi euh, nu mu ni am goût couleur noisette voilà noonu la ko gars yi di waxee ay aywa nañ ko nokkos nee naa la dañ koy sénégaliser euh, defar lasagne bu saf léegi épice su nokkos nga rectifier sa assaisonnement euh, bàyyi mu dang parce que faragul 500 millilitres meew laa def genn wàll litre damay xaar mu dang ma defaat yeneen genn wàll litre nga am texture béchamel bu onctueuse sax maa la wax lii. waaw kañ léegi nag dama bëgg ngeen kaa sama recette yi yéen kaa leen Alphie Cuisine bi Sénégal xam nga dafa bëri mais dama bëgg nag ngeen di kaal yi di ko partager di waxtaane sama lasagne yi daal waaw waxtaane leen sama sama chaine Alphie Cuisine bi ma yegg ci un million abone yi hmm? espagnol yi dañuy am ay un million abone marocain yi dañuy dañuy am ay un million abonné latino américain yi dañuy am ay un million dabone léegi lu tax ñun sénégalaises yi di di togg nekk ci youtube bi du ngeen ñu jàppale tamit bu ngeen di seetaan ngeen abonné partager video yi bu ko defee ñi abonewul woon abone ñu mën a am ci un million abone yi si nous dans naa nuu di barki démb laa dugg Marodi di seetaan euh, théâtre yi dama ko gëj a seetaan mais ñoom ña nga ca cinq millions abonné pourtant li ñuy def li ñuy def nii euh, njëriñ la de surtout jeeg ndaw ji nga xamante ne dañuy seetaan ay Marodi di seetaan Evenprod voilà bu ngeen di seetaan dañ leen di bindal public gu Alphie Cuisine mi ngi seetaan mais dugg leen ci Alphie Cuisine bi ngeen ngeen abonné c'est quoi problème a ah, sama gars yi ñu jàppalante waay waaw koy rectifier sa sa assaisonnement gis nga sama sama sama mbana sama mbana euh, lasagne yow bolognaise nga xam ne deux ans na nga koy def bu la neexee genn wàll sauce bi nga defar sa spaghetti wala sa penne daal di ko ci tuy wala nga jël def sa lasagne comme ni ma ko defee wala nga jël rigatoni wala pat bu la neex nga boole ko ak sauce bi voilà fii dama ko accéléré comme ça ngeen gis étape par étape def naa sauce def béchamel teg sa may yu lasagne def sama fromage répété opération bi ba sama farce jeex voilà bu leen fàtte Reen Herbes Épices am na point de vente ex hypermarché euh, bu VDN bi ak bi nekk Yoff bu ngeen demee da ngeen fi fekk Reen Herbes Épices épices yi de ñàkk koo am wóorul parce que noppale na euh, dootoo yàqati sa xaalis di jënd épices marché yi nga xamante ne kenn xamul ndax dañu périmé ndax amatul goût am nga sa embalage boo xamante ne sa goût épice du naaw soo jinee sa packaging day yàgg si yow loo togg mu accompagner la bu dee ñamu Sénégal bu dee ñamu Europe bu dee ñamu Asie lépp Reen Herbes sa ciy dem voilà gis nga ni ma ko defee nii yow defee ko noonu man nag sama élèves yi di di jël ay cours cuisine la plupart dañuy bëgg tout le temps resetu lasagne parce que recette lasagne ça paraît facile mais c'est difficile voilà mais yomb na nag léegi nag enfourneel jëlal sa paaka lasagne dafa war a ñor pat la nga dugal paaka bi dafa war a nooy nepp comme pombiteer bu ñor nga soog a génnee soog a jàll ci dégustation bi lii da laa leen mën a loon kaa leen sama video bi kaa leen Alphie Cuisine bi partagé leen Alphie Cuisine yi yi ci TikTok bi ñu nekk ci Instagram Instagram bi dee leen waxtaane Alphie Cuisine sama gars yi kenn du yéen bu ko defee rek ñu joxante rendez-vous semaine prochaine maa ngi dagg de ay maa ngay reeri je vous une très bonne dégustation bon on se donne rendez-vous très bientôt sama gars kenn du yéen nam naa leen nag namm naa leen ayca léegi nag euh, dégusté ku ne jël sa fourchette ngeen ñëw ñu reer jaajëfal naa leen